suñu borom dellu ni yéen ñi gëm kulu min tayibaati ma razaqnaakum washkuru lillah na ngeen yéen ñi gëm dee leen lekk ci li lew ci li ma leen wërsëgal tey sant yàlla am yeneen aay yoo xam ni suñu borom diglewu ci cant direct waaye la muy wundu mooy boo boo amee dégg tuuti rek sant sant la la ci digal ndax lu mel ni mu ni qul li ibaadiya alladina aamanu neel sama jaam ñi gëm yuqiimu salaa wa yunfiqu mimma razaqnaahum sirran wa alaaniya neel sama jaam ñi gëm nañuy taxawal julli nañuy dépassé li ma leen wërsëgal ci lu nëbbu ci ak lu feeñ jëkk bis di ñëw boo xam ni am commerce amu fa njariñ ak xaritu du fa am njariñ min xable an yaate yowmun laa bayun fiihi wala xilaal bayon nit ki nga séqalu dara jotewu leen dara mosoo ko xam man ngaa ñëw muy jaay nga am njëg jënd dem sa la ca des ci lu nit war a mën a mooy ak xaritoo mu ne nag bés a ngi ñëw boo xamante ne jënd ak jaay amu fa xaritoo amu fa kon gaaw leen ngeen taxawal julli ak koor jëkk bis boobu suñ borom delluwaat dinu leeral ay xéewal yum na defal te seetluwuñ ko nit dafa mën a fàtte moo tax yàlla day seetlu jege mun la xoolal lii te bàyyi ko xel afala yanzuruna ila al ibili kayfa xuliqat gileem mun la waaw xooli na gileem nan laa ko binde wa ila samaai kayfa rufiat wa ila aljibaali kayfa nusibat lu jege la lay woon pour sa xel del siwaat moo tax suñu borom ne allahu alladi xalaqa alsamawati wal ard yàlla moo bind asamaan ak suuf wa anzala min alsamaai maan moo wàccee ndox mi ci asamaan si fa axraja bihi min alsamarati risqan lakum moo leen defal ci ay meññet loo xam ne da leen ko wërsëgale daal di leen di tàggatal nag wa saxara lakumul fulka li tajriya fil bahri bi amri moo leen tàggatal gaal gi pour mu mën a dox ci kaw géej gi wa saxar lakumul anhaar moo leen tàggatal dex pour ngeen mën ci génnee ay njariñ waa wa saxara lakum shamsa wal xamara ni moo leen tàggatal jant bi ak weer wi ñu sax dàkk ak njariñ yi leen di jariñ wa saxara lakum layla wan nahaar moo leen tàggatal guddi ba ngeen mën cee dal noppalu ci mu tàggatal leen bëccëg ba mu yaatu ci yéen ngeen mën cee fàggu seen dund wa aataakum min kulli ma saaltumoo lépp lu ngeen ko laajal mu seet la leen amal njariñ mu jox leen min kulli ma saaltumoo daal cee teg ne wa in tauddu nimatallahi laa tuhsuha bu ngeen doon wàññi xéewalug yàlla wax de yàlla waxul xéewal yàlla yi xéewalug yàlla bu ngeen ko doon wàññi du ngeen ko mën a takk te mooy genn xéewal gu ne la ca nekk ci ay njariñ boo ko bëggoon a wàññi lu mel ni gis ab xéewal la ndax li la gis di jariñ lépp barke barke yi am ci gis boo ko doon ko mën a wàññi nopp benn xéewal la waaye la ca dajaloo ci ay barke lépp ndax boo ko doon ko mën a lim tànk genn xéewal la waaye la ca daje ci ay njëriñ yëpp ndax boo ko doon lim da ko mën lim loolu tax mu ne wa in ta'uddu ni'matallahi mooy xéewalu yàlla boo ngeen ko bëggoon a wàññi du ngeen ko mën takk daa ci teg na ni innal insana la zalumun kaffaar waaye nag nit ab tooñkat la te weddikat la weddi mooy kuy suul jëf la loolu kon ab junj la ci waruk cant bu ñu loolu lépp ay ay gàttal la ci alxuraan bu ñu ci tuddee ñaari ay ñett rek doy na ñu dem ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi ci hadis bu muslim nett li ak Tirmisi yi yonente bi wax ci ne yàlla de neex na ko ci ab jaamam bu lekkee ak lekk mu sant yàlla bu naanee guuxub ndox sant yàlla la tax jaam bi war a sant yàlla ci lekk mbanaan gi mooy nit mën naa dem ba am ay milliards benn tibub ceeb képp du ko mën a jàll benn pot meew képp du mën a jàll kon boo tibbee sàqami mu jàll war ngaa ndax da bàyyi xel lee nit mën naa am ay milliards ñu dem ba àgg ci ñu jël kuddug ndox képp de ko sol du jàll kon boo mënee jël ndox naan bu màndi xëexat war ngaa sant moo tax suñu boroom bëgg na ci ab jaamam lool bu lekkee na sant bu naanee na sant bu demee ca wana wa génnee li mu war a génne bu dee ndox la bu dee leneen la na sant ndax kat mënu naa te ticc nit ndox mu war a génne ci moom tuur bu génnut xëm lay def day da tàggu sagom ca saasi moo tax nit di fàttaliku xéwal yàlla yi pour di ko ci sant naka noonu beneen xadis bu jóge ci yonent bi mu wax ni yàlla de bu xéewalee jaamam bi ak ak xéwal bëgg naa gis jeexiti xéewal googee ci jaamam mbobe loolu kon ci gàttal ñaari xadis ak noonu yoo xamante ni yonent bi sallallahu alayhi ci soñe ci sant Sëriñ tubaa ab dundam lépp ak cant la woon ak cant yi lañu digal muy li gën a rëy ci lu mu digal mooy sant mooy sant mooy bisam bii bisu màggal gi bis bi mu waxee ni lépp lu ma am ci la ma ko sama borom defal képp koo xam ne sama mbégte sa mbéga saa bu ñëwatee dala ci ganaar ba ci gëléem na nga ma koy defal dama ko santalee sama borom kon li gën a rëy ci lu mu digal mooy cant moom Sëriñ Tuba waaye Iblis mi doon noonu doomu aadama te suñ borom moom képp lañu wax ni mooy seenum noonu te na ngeen ko jàppee ab noonu inna shaytaana lakum aduwun fattaxiduhu aduwan Iblis moomu li ko gën a ñor ci nit ki mooy mu bañ a sant nee na yàlla fa bi ma fa bi ma bewloo nga ma de waaye nag la aqudanna lahum sirataka almustaqim sa yoon wu jub wa dinaa fa toog summa la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wala tajidu aktharahum shakirin ni ko li ma fas yéene mooy ñu ëpp ñoom duñu sant dinaa leen jaare ci kanam ak ci gannaaw dina leen jaare ci ndijoor ak càmmoñ borom xam ne dañuy wax ni ndijoor ak càmmoñ lam ci jublu mooy dana leen jaare ci yoonu jaamu yàlla dana leen jaare ci yoonu mooy yàlla ndijoor mooy yoonu jaamu yàlla nit ki mën na jaamu yàlla seetaane jaar ko ji ba yàqal nit ki nag mooy yàlla mu waxaale ko waaye jëmmi jaamu yàlla waxaan ay aymaanihim waxaan shamaa'ilihim kon iblis li ko gën a ñor mooy nit ki bañ a sant waaye nag li metti mooy loolu yi mu waatoo ni dinaa ko def day def na ko ndax suñu borom saxalal saxal na ni ñu ëpp ci doomu aadama yi du ñu sant kat waaw suñu borom dafa wax ni wallahu axrajakum min butuni ummahatikum laa ta'lamuna shay'an bi ma leen di génnee ci seen biiri ndey xamu leen dara mën maa leen defal ay nopp defal leen ay bët nopp aw yoon la wu xam-xam di jaare bët yoon la wu xam-xam di jaare pour jàll ci xol wala afidat waaye nag xalila maa tashkuroon waaye nag néew na nag li ngeen di sant néew na delluwaat ni wa xalilum min ibadiya ashakur samay jaam kon iblis wax na dëgg li muy li muy muy soof soof wax na dëgg léegi nag cant googu yi yàlla digal nañu ko yonente bi digal na ko Sëriñ Tuubaa jeexal ci ab dundam digal na ko Iblis la ko gën a ñor ci nun mooy duñ sant lan mooy sant baat boobu moo nu tax a jug tey mooy lijjanti lan mooy sant dëgg dëgg sant imam Xasal day wax ne sant ci maqaamaatu saalikiin yi la bokk ngëm cib tàmbali gëm rek lay teg waaye nag dafa mel ni gàncax bu ñuy doog a jëmbat mu aaji suuxat moo tax ahlu tasawuf dañuy am lu ñu tuddee maqaamaatul yaqiin ay maqaama yoo xam ne foog nga jaar ci doog a àgg ci yaqiin ci sa ngëm maqaamaatul yaqiin foog nga jaar ci doog àgg ci yaqiin ci sa ndax ngëm gi buy doog a tàmbali weesuwut sami'na munaadiyan yunaadi lil imaani an aminu bi rabbikum fa na dañoo dégg rek kuy woote di woote ni gëm leen seen borom ñu gëm ko waaye nag ngëm gi bala moo àgg ci martaba yaqiin nag da ngay jaar ci juróom-ñeenti étape yooyu am nañu ko lim ba téeméeri étape sax léegi nag sant nag benn étape la ci étape yooyu nga xam da nga jaar pour àgg ci yàqeen ci ngëm imaam yoo wax ne sant nag ci ñett lay nosoo xam ak yëg-yëg ak jëf ñett yii mooy daje cant doog a mën a xam ak yëg ak jëf xam-xam bi mooy cosaan li nit ki day xam mu indil ko ab yëg-yëg yëg-yëg boobu indil ko jëf xam ngi mooy xéewal gi nga am nga yëg ni nga yëg nga xam ni yàlla la ko defee am nga xéewalug bët xéewalug nopp xéewalug mën a noy xéewalug bu yëkkati ab loxo mu yëkkati ko xéewalug tànk nga yëg ni xéewal gi wax àgguñ sax ci xéewalu lekk naa nag ak ak wërsëg yi lay jox waaye sa jëmmi bopp rek lépp xéewal xéewal googu yëg ba nga yëg ba nga yëg ni yàlla la ko jox rek loolu mooy xam-xam première fois mbégte ma ngay bég ci jox kim la ko jox mooy xaal bi jëf gi nag mooy nga fexe ba yooyu yi nga dugal ko fu neex moom mi la ko jox fu moom la ko jox kon xam-xam ak yëg-yëg ak jëf mooy sant jëf jooju mujj a nag jëf ji day aju ci xol xol day jëf làmmiñ di ko jëf cër yi di ko jëf moom la Sëriñ Tuubaa wax ne xaqiqatu shukri la daa man alima shuhuduna min sil jalaalin niama dëgg dëgg sant mooy xam gi ngay xam ni xéwal gii ci yàlla bàyyi ko wa amalun biha lisaanan wa janaan fi kulli ma yarda wa rukunan yustaban bu ko defee nag xam gi nga xam yàlla la ko defal nga fab xéwal googu jëfe ci lu neex yàlla ci zahir ak ci baatin xéwal googu ngay fab di ko ci lu neex yàlla loolu lañuy ñuy tudde sant kon loolu mooy sant yëg-yëgu xol yëg-yëg bi nga yëg bu defee yëg-yëgu xol bi mooy lan xol ci fas lay jëfe fas gi ngay fas ci sa xol ni bépp xéewal boo am bépp bànneex bépp njariñ booy jariñoo bépp yëngutu bépp dal ngeneelu yàlla lu mu defal waaye jógewu ci keneen yëg-yëg ba mu nga yëg ci sa xol moom lañ mooy liggéeyu xol ci ak cant kon xol ci fas lay jëf làmmiñ santu làmmiñ mooy lan wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis mooy nga di ko wax kon làmmiñ mi ngi sante ci xéwal gi la yàlla def la nga di ko wax nga di ko tudd nit ku la defal dara ci xéwal day ko wax ko neel moo ma defal nangam sant ko ci gërëm ko ci doog a fab nag jëf ja man ci delloo ko njukkal nga delloo ko waaye la ngay jëkk def daal cantu làmmiñ mooy nga nangu ci saw làmmiñ ne xéwal gii diw sàngan moo ko def kon dañuy nangu ni xéwal yépp ci yàlla bàyyi ko mu des nag ñaari mbir xéwal gi yàlla dina ko jaarale ci nit mbaa mu jaarale ko ci sabab boo sabab waaye nag lay sant dëgg mooy nga xam ne xéwal gi ci yàlla bàyyi ko bu ñu nee alhamdulilahi rabbil dañ ko daan firee alhamdulilah dañ naan mbooleem xaaji cant yi di ñeent mooy cant gi yàlla sant boppam sant gi yàlla sant jaam bi sant gi jaam bi yàlla sant gi jaam bi moroom sant moroomam jaamam ñeent cant yëpp lillahi rabbil alamin waaw ndax xéwal gi la yàlla defal benn mu jaare ko ci nit noo war a jàpp nit kooku danga koy jàppe ni xale boo xam ni nit daa tibb ndab jox ko ni ko dama ñëw ko sa baay waaw léegi ka tibb ndab la ngay sant wala xale bi ngay sant xale bi da ko ne jërëjëf waaye nag santal ma sa baay diw kon nit ki am na jërëjëf waaye sant gi digg day delluwaat ci borom bu dee waasit bu dee bu dee sabab bi dañ koy misaal ci lu mel ne tiwab ndox teew bi indi ndox mi moo ko indi waaye est-ce que moo ko indi teew bi ngay sant wala ka ubbi wan ba pour ndox mi ñëw moom ngay sant kon ñaar yi ci la yàlla di jaarale xéewal ci nit la koy jaar mbaa mu jaar ko ci sabab te lu mu ci mën a doon rek cant gi day dellu ci yàlla bay xaq net li ab xadis jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi mu wax ni mu wax ni yàlla mu wax ni waxtaane xéewal ak cant la waaye ñàkk ko waxtaane ak kéefar ak wedd la te ku dul sant lu néew bu lu bari ñëwoon ni doo ko sant te ku dul sant nit ñi it bu la yàlla defalee doo ko sant kon fokk ñu jàpp loolu yi xam ko mu des nag dawaamu sukkuri saxoo sant sant gu cax bu sax dàq mi ngi amee ci nit ki bind ak cantam ci ab téere ni sëriñ bi jëfandikoo ci lu bari ci xasida yi wala mu def ak cant jëf ak cant mooy nga lu mel ni nga tabax jàkka baa nga tabax daara baa nga tabax benn fondation boo xam nit ñi dañ ciy jariñu te jubluwoon ci sant yàlla jëf sant dañ koy jëf ba tey loolu ba tey mu des fi dana nekk dawaamu sukuri li feeg loolu mu ngi mu ngi sax kon sant ci mbind moom mbind sëñ bi miin nañ ko ci ndax xasida gu muy tàmbali gu ne ci sant la koy tàmbalee wala xasida yi nga xam da ciy wax ay may yu ko suñu may lu mel ni ilayya xaada maliki mu zahzihal xawaaliki yàlla may na ma luy sori luy sori lëndëm yi uniiru xalba saaliki bi zahirin wa mubhami damay leeral xolub képp ku soobu ci biir ak ci biti loolu ak cant la gu sëriñ bi wax saxal ko ngir mu mën a continuer doonu cant abadan dawaa mu sukkur lay doon moo tax imaam Sha'raani dafa am benn teel téere bu ñu taal tudde ko al minan al minanul kubra di ci nett li xéewal yi yàlla may dafa wax ne ñetti mbir laa jubli ci nett li gii may nett li xéewal ma suñu borom may li tax ma di ko bind ci téere bi la ci jëkk mooy bëgg cant gu sax gannaaw bu ma fi jóge cant gi téere bi représenté ma mu mel ni maa ngi continué di sant maa ngi continué di dund boobu mooy benn bu ñaareel bi mooy bëgg nit ñi roy ma ci bu ñetteel mooy fi ma jaar ba am ko nit jéema a góorgóorlu pour jaar fi daal di wax ni sant li fekk mi ngi ci téere bi cant gaa ngi sax te bu fekkoon ne dafa yem ci làmmiñam képp day dem ba day dem ba jeex moo tax ñuy bëgg kuy sant suñu borom ci bind ab téere mbaa nga jëf-jëf ji fii des abadan du doon ak cant ci mu des santu cër cër yi cër yi dañoo bëgg ci ñëw ak cant waaye lay santu cër nag mooy nga fab mbooleem xéwal gu la yàlla nga delloo ko ci ngërëm luy gërëm lu yàlla mooy moom la woykat bi wax ni ashukru sarful abdi ma awlaahu min niamin mawlaahu fi ridaahu sant dëgg mooy jaam bi la ko suñu borom ci ay xéewal daf koy delloo ci lu neex yàlla sant googu yi nag mooy li néew moo tax suñu borom di wax ne wa qalilum min ibadiya shakur ndax dafa dafa wax ni i'malu ala shukra yéen waa kër daawuda jëf leen ak cant daal di wax xaliilun min ibaadiya shakuur lu ëpp ci jaam ñi seenu cant mooy jërëjëf sant naa la alhamdulilah sukran waaye nag duñ ci weesu loolu te fekk cant gi gën a rëy ci cant yi nag mooy cantu jëf mooy li la yàlla defal ci ay xéewal nga fa ko delloo ko ci lu ko neex ci lu ko neex kon ponki cant bu ñu ko doon wax dañuy wax ni cant am na juróomi ponk juróomi keno yoo xam ñoo ko téye ba ca jëkk mooy ki la defal li nga koy sante da nga da ngay toroxlu si diggante ak moom won ko ak toroxlu bu ñaareel bi mooy na nga ko bëgg na am ci moom ak cofeel ñetteel bi mooy na nangu ne xéewal gii moom yi moo la ko defal ñeenteel mooy na nga ko ca tagg juróomeel bi nag mooy lii mu la defal bu ko jëfandikoo ci lu ko neexul yàlla may na la xéewalu xel xel fexeel bu ci xalaat mukk luy lor jaam yàlla yi buy bul xalaat mukk luy lor ab jullit dee ci xalaat jamono bu ne luy yóbbu nit ñi ca kanam lu leen di may àdduna lu leen di may alaaxira lu leen di musal lu leen di nang waaye bu xalaat mukk lu leen lor xalaat bi képp bokkul ci sant xalaat képp bokkul ci sant xéwalu xel yàlla mel la ab nopp fexeel ba bu ci déglu mukk lu naqar yàlla sëriñ Tuubaa nee na wala tadunnu anna isma al ghiba yuxtasu bil qaa'ili fil musib bu leen jàpp mukk ni bàkkaaru jëw day yem rek ci aju wax ji waaye ba ci yow mi koy déglu da nga ci amal bàkkaar moo tax sant yàlla ci xéewalu nopp mooy nga bañ cee déglu lu ko neexut li wolof di wax ni ku la abal ay bët del xool fa ko neex sant yàlla ci xéewalu làmmiñ mooy nga fexe ba bañ cee wax lu ko naqari bul ci jëw bul ci fen na nga ciy jàng alxuraan na ngay sikkar na ciy digle lu baax di ci tere lu bon mooy làmmiñ nga di ci def lu neex yàlla loolu mooy delloo yàlla njukkal ci xéewalu làmmiñ ñaari tànk xéewal la fexeel ba bu ci dox mukk lu naqar yàlla ay loxo xéewal la fexeel ba bul ci dox mukk lu naqar yàlla Sëñ Tuubaa daan wax ne wa in tauddu niamatallahi laa tuhsuha xéewal yéen yàlla defal bu ngeen ko doon wàññi du ngeen ko mën a wàññi daal di wax ne kullu harakatin wa sukuni bépp yëngu bu nit yëngu bëgg yëngu-yëngu képp xéewal la te boo bëggee wàññi yëngutu yi nga yëngu ndax da nga ko mën a wàññi wa in tauddu niamatallahi laa tuhsuha kullu nafasin min anfasik bépp noo góor noo yi xéwal la ci xéwal yàlla yi te noo yi ngay wàññi ndax boo ko noo yi ngay nooy ndax boo ko bëggoon wàññi mën ko wàññi ñu ko dee mu ne wa in tauddu nicmatallahi la tuxsuha kullu xutwatin taxtuha bépp jéego boo jéggi jéego boobu ci xéwal yàlla la bokk ndax mënoon nga mënoon ngaa yëkkati tànk mu ni fi sekk du jàll kon jéego boo jéggi xéwal yàlla te jéego yi ngay jéggi boo ko bëggoon wàññi du mën a sotti moo tax mu ne wa in tauddu nicmatallahi laa tuxsuha